حرام على من داوى أبا سيدنا محمد مصطفى دخول جنان دقيلا تري ومن لم يلج نخجو ينتظر بيول ثقيل ونار لفو سيدنا محمد كفونا على خيرنا بالأولى أي مستوى إذ المصطفى خطفى برجوه أديم امتداء لبار نداتي مستوى جزيلي لوا فتنا لربوه أديم صناء murtaja siduna Muhammad mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara tey baalu àq di leen baal di ñaan ci boroom bi subhaanahu wa mu jéggal ñu suñuy bàkkaar ginnaaw bi ñu jéggalante rëcc rëcc yi dox suñu digganteeg suñu moroom dellu di ndokkeel bu baax ci bërëb bu màgg bi ñu toog muy baytullah al xaram doon néegu boroom bi subhanahu wa taala nga xam ne tey bu fekkoon ne dafay ñëw ci gox bi du dugg ci benn kër bu dul kër gi mooy doon wàccuwaayam comme ñun ñi bu fekk ni bi teew nañ fii ci bërëbam bii nga xam ne bu doon wàcc fi lay wàcc loolu xel manees na cee gën a dal waaye ànd ak loolu lépp itam lu ko sabab mooy rek topp ndigalul borom bi subhanahu wa taala santaane bi nga xamante ne moom la sant ay jaamam waaye jaamam yooyu itam mu am ñu mu ci cité ñoo xam ne dafa def mu xaata ba ak ñoom ndax li mu am ci ay jaam bari na kaadari malaaka yi ca lañu bokk jinne yi ca lañu bokk li ñuy tudde doomu aadama ci lañu bokk waaye itam li ñuy tudde ay njaay àll itam ci lañu bokk ñépp mbindaa fi boroom bi la subhanahu wa taala waaye mu xool ci loolu lépp am lu mu ci seppi joxoñ ko muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak loolu joxoñaale aw xeetam muy ñun ñii mu am lu mu ñu digal loo xamante ni digalu ko yeneen loolu doon loo xamante ne ngëneen la bu ñu borom bi subhaanahu wa taala defal ndax moo ne inna wa malaikatuhu yusalluuna ala nabi bu yamoon foofu rekk ñun waroon nañu mën a am xel moo xamante ni même bu ñu waxul ne nañ julli ci yonent bi sallallahu alayhi war nañoo am xelum julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa waaye masamaag nag ba mu waxee loolu ba pare ne inna allaha naka yàlla wa malaikatuhu ak yonentam aki malaikaam ñoom day yu salluuna danañu julli ci kan alannabi ci yonentam bii di muhammad salallahu alayhi wasallam foofu la njëkki ma ne bu yamoon foofu rek ñun waroon nañu am xelum ne comme yàlla ak i malaikaam ñu ngi julli ci yonent bi kon ñun itam doomu aadama ni ñu tourne julli ci yonent bi heureusement nag faf mu teg ci ne yaa ayuha alazina amanou génn na kaadaru malaayka yi génn na jinne yi génn na ci nja njanaaw yeeg njaay àll yeeg bàyyi may déedéet yaa ayyuhal lazina amanu ee yéen doomu aadama yi yéen ñi nga xamante ne gëm ngeen ne yàllaa yàlla ku dul yàlla du yàlla gëm ngeen ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam yàllaa ko yónni kon ñépp dugguñu ci ndax bu doonoon yaa ayyuhan naas muy ee yéen nit ñi kon yéefar bi dugg na ki ki gëm yàlla dugg na ki gëmul dugg na naafiq bi dugg na ñépp dugg na ci yaa ayyuhan naas mais déedéet daf koo settantal yaa ayyuhal lazina amanu e eh, yéen ñi nga xamante ne nangul ngeen ma ñi ne ko labbay ko ñu ngi nii yow la ñuy déglu yow borom bi jalla jalaaluhu mu ne ñaar laa leen di xamal walla benn sallu alayhi bu fekkee ni bii bëgg ngeen a mucc ci seen wàllu àdduna bu fekkee ne bii bëgg ngeen a mucc seen wàllu allaaxira bu dee bëgg ngeen a mucc ci seen wàllu barzaq muy boo jógee ci àdduna bi bala ngay dem allaaxira foofu ngay def escale ñu koy tudde bàmmeel mu ne bu fekkee bëgg ngeen a mucc ci palaas yooyu yëpp ñu ne ko waaw nan lañuy def mu ne lenn rek mooy yoon wi ngeen xam ne bu ngeen fi jaaree ngeen mucc mooy lan mu ne sallu alayhi julli leen ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne moom rekk moom ngeen di mën a amee sawetaas ngir mucc ci seen dund gi ngeen di dund moo xam xat-xat yi fi nekk ak li ngay taraversek ci ay coonaak ci ay musibaak ci ay balaak yépp li la ciy dimbali mooy jullil ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na bu ngeen ko defee rek wasallimu tasliman di ngeen sëlmal di julli ci moom di sëlmal ci moom waaye di amaale mucc goo xamante ne mucc gu mat sëkk la goo xam ne day jóge ci man mi subhanahu wa taala jalla jalaaluhu wa azza kamaala te loolu bu ñu ko waxee fa tabaarakallah sanul xaaliqin ah war nañu ko gëm ndax dañu cee jox ay misaal yoo xamante ni bu ngeen si jullee ngeen mucc ay misaal la ñu jox ñu ñu jiitu ñoo xamante ne ñun ñi ñoo mujj fekk leen maanaam ñun ñun ñoo mujj ñëw ca ñoom ñooña te gaa ñooña gis nañ ci ay misaal gis nañ ci ay résultat résultat yooye ca gaa yooya amoon nga xamante ni bi ñu amee ay jafe-jafe bëgg xettaliku bëgg mucc ca jafe-jafe yooyu ñekkoon dañoo jilli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran moo ñu ko nettali ngir ñi teg ci suñu bët waaye ñi jàng ko fa tabaarakallaahu ngir suñu xel gën a mën a dal nga ne waaw kon kay loolu bën përëf nga ñu ci mën a andil ñu nekkoon nañ dellu ca cosaan la kullu shay'in yuraddu ila aslihi lépp lu mën a doon rek nee na delloo ko ca cosaan la fa mu jóge ñu ne ñun ñëpp kullukum minna min wala di aadam ñun ñépp ci aadama lañ jóge fala ñu soqi ko moo waral léeg-léeg nga séen ku xeesak ku ñuul ak ku xeereer ak noonu nga xamante ne eh, noonu lañ koy settantale ne diw lii la diw lii diw lii la waaye yépp boo ko dàqee rek ca fa mu ca aadama alayhi salaatu wassalaam ñu ko doon dégg rek ci ustaas ci qisasul anbiya bim ñu koy leeralal ci di nekk ci suñu maam aadama ba nga xamante ni yàlla joxe ndigal pour bëggu ko bind malaaka yamu yamu joxoon ndigal dem leen andil ma suuf ñii bu ñu jubee suuf si rek suuf tàmbali di muulu ñi gaaw ragal dem waaye gis nga Asraayil moom nga xam ne mooy jël katoroo yi moom ba mu dikkee suuf si muulu ko waaye faale ko ndax dani ndigal la loo xam ne mu ngi jóge ci borom bi te yow suuf jaam nga ko man mi ab jaam laa ñoo bokk yam ca kanamu borom bi subhanahu wa taala ca la sàkk ca suufa yooya dem jox yàlla yàlla booleek ban bi boole ceeg ndox bind ci doomu aadama muy suñ maam aadama cof-cof yooyu mu doon cof ci suuf yu bokkul su weex saa su xong saa su ñuul sa moo waral ñu judd kii xong kii weex kii nangam ak nangam ndax danga bokk ca fepp suuf woowu ñu jël kon bu fekkee ni bii nag danga bokk ci bu ñuul bi nga ne man dama bëgg bu xong yàlla ne la acca defal say pexe ba am sabu bu xong gis nga nga ne dama ñuul dama xong dama bëgg a ñuul yàlla ne la defal say pexe waaye cosaan la foofu la soqi koo kenn ku ci nekk génn si na nga mel gis nga moom moomu eh, suñu maam aadama alayhi salaatu wassalaam lu mel noonu gaar na ko alxuraan di ñu ci jox ndigal ne xool leen ci moom suñ maam aadama gis nga bi mu dikkee amoon na ay jafe-jafe amoon na ay xat-xat yoo xamante ni ci la nekkoon mais gis nga bi mu nekkee ci jafe-jafe yooya ak xat-xat yooya lu nekk mu dugg ci fa tabaarakallaahu ba mu bëggee xettiliku lenn rek lañ ko xamal ne ko mooy rek nga julli ci sa sët bii nga xamante ne moo di subhaan moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te heureusement booba sax yàlla dogal na moom dikkagul ganeegul àdduna fa tabaarakallaahu noonu lañu ko toppe ak yeneeni yonent yoo xamante ni kenn ku ci nekk rek ba nga naree sawee ci moom nga jaar muy ca Ibrahima bañ ko naree sànni ca safara baak Nuux ak kazaalika ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ba nga bëggee xettali ko rek yaa ngi ko jaarale ci kanamu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon bu ko defee muy noonu liñ naan bu ndox dikkee rek maasa allahu tiim <laughs> dafay dal di yàqu moo tax te dañu ko doon téyal maasa allahu lu si jub rek ñi ne mbaaxu yàlla lu dëng matadik doomu aadama ñu ngi leen koy jéggulu ginnaaw biñ ko jégguloo borom bi subhaanahu wa taala yaa oustaz jërëjëf kàddu yi nga doon sànni léegi yaa ngi ko doon doxee ci ndigalu sunu kilifa al imam Moussa Gueye wax naa sànq ne bi ñu ko wooyee la ne oustaz mën nga doxal maa ngi ñëw léegi oustaz ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la wax marhaban bëkk ci sa teewaay ci sunu biir maa ngi wax sànq ci initiative bu am solo bi nga xam ne doxal nga ko ba fa tabaarakallaahu ñu bari ci réew mi tey di la roy eh, yàlla guddal fan yi te wéral cër yi daara ji yëpp wala daara yi fii teew yëpp bég nañ lool ci janoog yow comme ni nga ko defe daaw nga fas yéene defewaat ko noonu incha allahu taala wax ñu lenn ci ngëneeli salaatu ala nabi wax ñu itam ci li nga peeg ci kan mooy sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bég nan lool kontaan nan lool o oustaz moo jëloon kàddu gi rek fa tabaarakallaahu di la xaarandi ba nga ñëw yàlla dogal na mbokki amoo senk yi ñoo fi teew ak mbokki sant nag yi waaye nag fekk fi si e, ndayu daara yi muy daara amoo siis fa tabaarakallaahu ñëpp ñu ngi teew di wax tabaarakallaahu marhaban bi ka waaye di wax yéen di ni sam ne ko marhaban bi ka ya rasulallah comme ni nga ko gisee ci buntu cité bi nii léegi tabaarakallaahu mbok mi toog ak yow tàggkatu yent bi la sallallahu alayhi wasallam seigne allah sek oustaz mi tam oustaz malik gay mom mo yore daara yi dëkk nu jàmm ca gën ci euh tabarakallah bismillah waa daara ñu ñu waa kay mooy daara ji ñu ubbi won fi ci Cheikh Wade ñom Kande ñoy soga ak ci ni legi waaw Kande wax nga dëgg ñoy soga ak ci ni legi tabarakallah Alhamdulillah jërë ngeen jëf jërë Imam jëf imam kon ci sa ndigal ah comme mbokki kenn ku nekk def na astaghfir astaghfirullah ñetti yoon jàng fatiha def 313 salatu ala nabi dañ la doon xaar rek nga ñëw suñu mbokki mi ubil la daal di tagg yent bi sallallahu alayhi wasallam boo jox la kaddu gi inshallah allah eh, seigne allah kon bismillah adi sanaan alal murtaja siduna muhammad alal murtaja wasallu alayhi salatan so li hubbi rasulillahi lasi sarmadan asalli alayhi bi mad'il malam fakun sayyidi li khadimin dani سفي اليوم العنا والكلوم عليك سلام الذي أبتغي كند سيدنا محمد لدي ختاما بفوز يريه ومن تكن برسول الله نصرته انت الخوسد في اجاميا تليني ومن تكن برسول الله مجل سيدنا محمد ومن تكن برسول الله نصرته انت الخوسد في اجاميا تليني بكنا نان لول نيسان يلا يلا فايل نلا تبارك الله بوغي سي ني جاخاسو yent yàlla Muhammad salaay sam moo tax ndax item yëpp comme ni mu ko waxee tagg yent bi rek mooy liggéeyam ci lay xëy ci lay gont ba sunu borom defal ko ci taw tawféex bu rëy fa tabaarakallaahu ñu ne ko nag bu ñuy dikkee rek balay imam di jël kàddu rek nga ubbil ko tagg yent bi sallallahu alayhi wa ndax yent bi ñëpp a ko bokk fa tabaarakallaahu yaa imam kon ah dafa mel ni ni ñu tàmbalee woon wax naa la ko tënkat ko tënk bu gàtt rek jox la kàddu gi. الحمد لله رب yàlla يلا دوغلنا وقت وي داو soxna يي دي daal دكنو جامو تي گن gën def اي مليون تي صلاه على النبي nabi مليون تي صلاه على النبي nabi نون noonu كو فاسييني fas رين جي ان شاء الله دانو danoo صاح مو يوك yokk ndax xalaat naa dina yokk ndax am na beneen daara bu ñëg si léegi muy nga xamni sunu oustaz bax bi di oustaz malik gay mom mo fa nek yoralen yaakaar naa kon li bëgg mooy comme ni ñu ko waxee ci biir groupe bi rek su ngeen demee ca kër ga ngeen commencé salaatu ala nabi am koo xam ne moo leen koy konteel fii ba gàmm ga soo ko defee suñu dajalee daara yi incha allah dañoo xam ñaata salaatu ala nabi la mbokki daara yi def kon bi ñëwee léegi li ñu ubbee mooy la ñetti yoon jàng fatiha def tres salaatu ala nabi mu nekk nag ubbi bi incha allahu taala lim bu nu am rek danaa la ko yëgal incha allah. kasaalika naka noonu mbokki euh, Sacré-Cœur yi ñoom itam commencé nanu maa ngi jokk ñoom sànq mbokki Mermoz yi ñoom itam commencé nanu mbokki Malika yi ñoom itam commencé nanu mbokki Kër Massar yi ñëpp commencé nanu incha allahu limb bi fu mu toll rek daana xam ni dëkkandoo jàmm a gën bi nga xam ni kii kër créé initié ko di alhaaji imam Moussa Gueye lii leen jox Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndokkee la ko ko kon nag yaa imam kon kaddu gaa ngoog ñu ngi ñaan yàlla na sunu boppam fecc la sa làmmiñ di sant nag baax nag sunu caméraman bi nga xam ne yaan ko gën a xam ca Safina tabaarakallaahu. jërëjëf oustaz. asalaamualeykum wa ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar. di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla nañu boole nangul. sunuy yéene ak sunuy jëf ci daraja yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di tàmbalee nuye ba nag ci sunu ustaas yu baax yi nga xam ni lépp ñooma ñun doonuñu ci dara wax dëgg yàlla bu ñu feree iji mën a jàng kenn ku nekk mën a ubbi sa téere fa tabaarakallaahu di jàng alquran ba agsi ci saa bu weeru gàmmu tero mu bokk li ngeen di wëlëranteeg yonent bi di bari lu ngeen di julli ci moom alayhi salaatu wassalaam e loolu fa tabarakallahu seen taxawaay la seen taxawaay la moo tax luñ ci wax ci ay ngërëm ak ñaan rek ci yéen ñi la gën a yey wax dëgg yàlla ak ñi yàlla may xol yu antu xol yu àntu ba ñu nangu parce que liit it nangu ko yombul nangu ko yombul kon bu ngeen bàyyee seen lépp nangoo jàng téere yàlla bi nangoo toog di julli cent bi loolu xol bu antu la ku sa xol gàntu doo ko mën kon nag xayrukum man taallama quraan wa allamahu yonent bi wax na ko yéen jàngalekat yi ngeen koy firee ki gën ci yéen mooy ki jang alquran di ko aha ki jang alquran di ko jàngale man du ma firé nonu sama firé bop nak la am de fa ne xayrukum ki gën ci yeen man taallama alquran moy ki def yitté xamlu alquran moy ki def yitté xamlu alquran comme ni ngeen def def yittey xamlu ko ngoon gu jot ngeen ñëw ñiy dem ci seen ustaas ñu toog jàngaleen alquran wa allamahu am ki ak ki am yittey jóg ko xamle ji man noonu laa koy firee ah ngeen Adja Cheikhou d'accord ngeen du dëgg xadis bi man noon laa ko déggee ki am yittey ak xol mu antu bàyyi lépp ak yi xew ni mu bare nga dagg ci sa temps ne yàlla man sa téere bi laa bëgg a wëlëranteel jàng ci alxuraan yenent bi ne ci ñi gën nga bokk wa allamahu ak ñi am yitte tamit bàyyi seen lépp ñëw di ko xamle yonent bi ne yéen a fi gën loolu la ah alhamdulilahi rabbil alamin di ñaan yal na ko yàlla subhanahu wa taala nangu sëñ Cheikh yal na yàlla dollee wéral baat bi waaye yonent bi loolaal ci moom rek alayhi salaatu salaam mu neex Samba jërëjëf ana Thierno ñu ngi koy ziyaar di feddale sunu cafeel ci moom tabaarakallaahu jërëjëf ci yitt bi yow yépp yal na yàlla subhanahu wa nangu e salaatu ala nabi nag e, maanaam làqukaay la noonu nga koy firee gannaaw ba ñu ziyaaree mbooleem ñi fi ba woo ci dëkkandoo jàmm ca gën yépp dem aji néeg ba ziyaare ju bi ñu ngi leen di ziyaar yal na yàlla nangu seeni aj yal na yàlla nangu seeni ñaan ak ku mas dem nag ñu ngi lay ziyaar ñi demagul yàlla na leen yàlla yóbbu bi jaahi sayidina muhammadin alayhi salaatu wassalaam laxat faaza man labba wa taafa wa zaarahu laxat faaza laam gi day giñ day wat kon li muy wax dëgg la xat gi day dëggal laxat faaza maa ngi giñ ci yàlla ni lii dëgg tey dëgg mooy texe na kan man la baa nee na ki yàlla may mu jóge fa mu dëkk dem ba màkk di la bay kaw nee na kooku maa ngi waat ci yàlla ni texe na <laughs> hmm? wataafa nee na la bayka ji mu boole ca yàlla baaxi ko ba mu wër néeg ba nee na kooku texe na labbayk woo texe nga wër nga néeg ba texe nga laxat faaza man la ba wa taafa wa nag yàlla may la tamit nga dem ziyaara ji yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na raw nga aljanna rek benn warante negu ci ndax ku nar a dem safara sunu borom du la bàyyi nga def yooyu ku nar a dem safara doo labbay kaw mukk doo wër kaaba ga mukk doo sukk mukk ci raw lu yonent bi janoog moom di ko ziyaar moo tax ku yàlla may nga am loolu raw nga texe nga sa wàccuwaay incha allah du doon fu dul aljanna yàlla nañ ko yàlla nangul bi jaahi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam e ngeen wëlëranteeg salaatu ala nabi ki nga salaatu ala nabi beneen mbir la bu bokkul ak mbir yi salaatu ala nabi beneen mbir bu bokkul ak mbir yi la dama bëgg li may bëgg expliquer ñu seetlu ko mooy maam sunu aadama alayhi salaam mooy maamu yonent bi sallallahu alayhi wa bi ko yàlla bindee ba mu sotti la ko yàlla sargale terale ko ko ko mooy xaju Maodo yaa ngi mel ni ku jóge màkk léegi eh, mooy waqul naa lil malaikati lu mu ca teg li aadama yàlla ne na ko malaka yépp sujjóodal ngir sargalee ko aadama yaa ngi dégg na malaka yëpp sujjóot ngir sargal aadama yaa ngi dégg dama bëgg mu ànd ak déglu na ànd ak seetlu bu baax li may wax xam nga baatu sujjóot la yàlla tudd foofu isjudu te sujjóot ruknu la benn ponk la ci julli sujjóot ponk la ci julli yeggul sax ci ibaadatu neel benn ba ko yàllay santaane it malaayika yi rekk la wax wa qul na lil malaayikati isjudu li aadama kon sujjuut bu nekkee di ponk ci biir julli bu nekkee di ponk ci biir julli bu ci gën a foor bi boole yëpp bi boole julli gi yëngu yeeg sëgg yeeg taxawu yeeg ak sujjoot yeeg yëpp booboo gën a euh, jafe euh, euh, di mais baatu sujjuut la yàlla wax ne na ko malaaka yi defal maam sunu aadama mais bi ndeyi mbilli gi ñëwee baatu salaatu la ko yàlla jox seetlu nga Hmm? oustaz seetlu ngeen. <laughs> ah. salaat la jëfandikoo. bi ndeyi mbilli gi ñëwee te mooy yonent bi baatu salaatu seetlu nga foofu yaa ngi seetlu fee sujjóot rek la ni defal leen ko aadama sargal leen ko ñépp sujjóot kabañ mu àll ak ko génne ko te mooy iblis. mais bi ponkal mi ñëwee ndeyu mbilli gi moom baatu salaatu la indi nga xam ni dafa ëmb sujjóot sujjóot yëpp ànd agum ca biir te bële dafa wax malaayika yi rek mais bii daf cee boole boppam ci la tàmbalee ci boppam la tàmbalee seetlul seetlul seetlul salaatu ala <laughs> waaw bii dafa ni wa qul naa lil malaakati bii mu ni inna allaha man yàlla wa malaikatahu ak samay malaaka yépp na ñu ngi julli ala bii ci yonent bi ah daraja yi ah daraja yi wuute na de kenn du yonent bi te li ci yéemeeti ba yéemeeti ba yéemeeti nag mooy affaire bi xam nga fan la ne kéemaan bi fu mu ne mooy kenn julleegul ci yonent bi seen junni yeeg millions yi ah. defu leen ko de Ah? seen mil ñooy salaatu ala nabi yi defu leen ci benn de benn ngeen ci deful nag bu ngeen di julli ci bi lu ngeen di wax. allahumma salli. yàlla daf la julliloo. Ah. yow au lieu julli ci man kon yàlla jullil ma. اللهم يا ويا الله صلي جل الم سير لونغا كني جل الولا يا ولا يا لني صلوا عليه جل لين تيموم وسلموا تسليما يا أولي أنك جل تيموم غني اللهم كن يلا يومي سنتان لولو صلي جل الم ala sayidina ci sunu sang bii ngi nuy julliloo ci moom muhammadin te mooy muhammad yàlla jullil la tegal la fa hmm? Hmm? tegal la xam nga lu tax ngeen xamoo ma yonent bi màggaayam ak tedd nga mag daraja mag kawee mag yëpp yow réer na la xamoo ci dara boo fa naroon nekk di wëral sa bopp sa dund dana jeex te doo gis ki nga julli ci moom doo dajet dayoom nga faf nag ne yàlla jullil ma yàlla mi ko xam ndax kenn xamu ko na ku dul yàlla te ku ko xamul it alku faf te yàlla rek ku koy xamle ku ko xamul alku waaw loolu moo tax ñu nit ñuy ñu ciy ñaanal bu baax Mawlana Cheikh Ahmed radiallahu taala anhu sharif Barzakhoul Maktoum moom mi ñu indil salaatu bi nga xam ni da nga ciy ñaan yàlla xamal la yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi salatan tuarrifuna biha iyaahu ndax ku ko xamul doo dem doo jàll nga ni ko nag yàlla jullil ma ci ci ci yonent bi te defal ma ko julli goo xam ne nag bi may defal ci moom ci ngay dëgg yow yàlla xamal ma kan mooy sa soppe boobu nga may julliloo ci moom du dëgg moo tax euh, yàlla julli nu ci yonent bi kem tey laayal jembarey suuf am na yàlla julli nu ci yonent bi kem biddiw yi am na yàlla jullil ñu ci yenante bi kemtalaayal ndoxi taw yi am na waaye benn du ca xàq qadri yi waaw est-ce que ci yooyu est-ce que xàq qadri yi yàlla julli ñu cant bi xàq qadri yi kemtalaayal kéemtalaayal gëddam ak tolluwaayam fi yow ndax ñun xamuñu ko te mënuñu koo xam yow mi ko xam nag julliñu ci moom kéemtalaayal gëddëm ci yow mais kéemtalaayal gëdd yonent bi ci yàlla est-ce que sax yonent bi xam na ko man loolu laay laaj. est-ce xam na ko moom est-ce que xam na ko moom xam nga foo koy natte oustaz fi nga toog fi nga fi nga toll ci man sori na. mais yow mënoo xam fi nga toll ci man mais man mii dund loolu maa ko mën a yëg maa ko mën a xam. Hmm? Hmm? moo tax est-ce bi sax xam na kem teral gëddam moom fa yàlla. yàlla rekk ko xam. nga ne ko nag salaatu bii ma def nag defal ma ko muy salaatu boobu nga xam ni kem te layal gëddam la moom yonent bi fi yow. boo seetoo sax aaya ba nu mu ko waxee maa qadarullah xaqa qadrihi yàlla mel ni kuy mettitu naan nit ñi daal joxuñu ma sama gëdd mm-hmm. alxuraan la mm-hmm. ah, man yàlla daal joxuñu ma sama gëdd hmm? mm-hmm. dëgg dëgg dëgg nit ñi joxuñu ma sama gëdd man yàlla mais salaatu bii ngay def ci xàq xadrihi ay jox nga yàlla gëddëm moom jox nga ko gëddam xàq qadrihi jox nga ko gëddëm sa sama jur moo ma daan wax ni boo xësee bay boo toogee bay ñaan yàlla bàyyil sa xel ci ni yàlla amul ay antu te bëggul luy antu ma ne ko luy antu mu ne ma ñaanantu defantu waxantu antu antu yooyu yàlla bëgg ko ñoo booy ñaan bul ñaanantu waaw ma dangay ñaan dëgg jox yàlla gëddëm ci ñaan gi ma ne ko nooy joxe yàlla gëddëm ci ñaan gi mu ni ma danga koy ñaan lu kenn amul ñaan ko lu kenn sañul ñaan ko lu kenn mënul mu xam ne jox nga ko gëddëm waaw <laughs> noonu la ñaane yàlla hmm? Hmm? ñaan ko lu kenn amul ñaan ko lu kenn xamul ñaan ko lu kenn mënul moo xam ne jox nga ko gëddam li kenn amul ku dul moom subhanahu wa taala moom rek ko am mooy sayyidina Muhammad di di yonentam di jaamam li kenn sañul te moom rek ko sañ mooy gënal gi mu ko gënal ci ñépp li kenn mënul mooy moom mi santaane ñu julli cent bi te mënuñoo jëkk ñun julli cent bi moom rek ko mën ñu ne ko julli ni ci moom gis nga bokk na ci li tax yowmal qiyaamati euh, bu ñu taxawee ci kanamu yàlla di layoo ak moom maam seigne Abdullah hat mbake radiyallahu taala anhu dan na wax ni ci waxinam boobu la yalla sama borom de yamal xiyaamati dana taxawal ab jamam di càmbari mbiram diko lijeenti diko di diko lijeenti diko ko di lijeenti ba da ngay defe ni yow rek la bindon ah. da ngay dem ba da ngay defe ni yow rek la bindon ndax am jot <laughs> ndax am jot gis nga bés bés te bés ña benn fan ñaari fan ñetti fan bés fii la yem ci àdduna te sax bés jeexul faf bés bés jeexul jant bee fi nekk rekk di dox fésam di ñu indil bëccëg nëbboom di ñu indil guddi <laughs> hmm? waaye fayal jant bi dana fekke mission jeex isa shamshu kubirat dana fekk bidi wi seen mission jeex wa isa nujumun kadarat même asaman dana fekk tamit mission jeex isa samaun fatarat yépp seen mission dana jeex mu des yàlla rek nga xam ne moom subhanahu wa taala muy woo jaam yi kenn par kenn di wéet ak di lijjanti say mbir kenn par kenn de di wéet ak di lijjanti say mbir muntaxim ci tur yàlla yi la bokk xam nga lu muy firi ba tax yomal xiyam kenn du ñemee avancé wuti yàlla sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. tabaarakallah yii yëpp day day gal di di wona ne lii daal tabarakallahu <laughs> parce que li du hasard hmm? du hasard mu ngi nonu du kon kon ñu ngi barkelu ci mom de waaw moy salatu ala nabi rek lay wax nonu waye muntakhim moy teki di firi lu war ci jëf ko fay lu waaw mooy firi loolu lu war ci jëf dina ko fay ñu ni bu doon bubu nak yomal xiyam la ko sol bu doon mantu bu doon mantu ci turum yi yomal xiyam lay sol muntaqim su ko solee nag ba ni ñew leen ñepp dekki kenn du ñëmé avancé nak tambalé ko ci ya, kenn du ñëmé sikki jégo dem ndax li war ci jëf danaa ko fay te benn jëf rëccul réerul jëf yépp mi ngi ma dajale nii léegi nag avancé leen kenn du ñemee siqi jéego dem ñépp di xoolante ñépp di xoolante ñu jaaxle ba jaaxle ñu ne ah maam Adama kat moo jur ñëpp nañ leen daw ci maam Adama mu jiite convoi bi ñu wuyu ji yàlla ñu dem ci maam Adama maam Adama man semewu ñemewuma séqi jéegu ñemewuma ko mukk man dafam lu ma war a lijjanti ndax ba mu ma dëkkalee aljana ni ma bu laal garab gi e seytaane jaar ci awa awa man ma ne ma ba ma laal garab ga man loolu laay seet nu ma ko lijjantee tey <laughs> yow ngeen baal ma de boroom xam-xam yi dañuy wax ne jigéen dépositaire u xalaatu seytaane la dépositaire u xalaatu seytaane la ma dégg sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al radiyallahu anhu wax ni déedéet nee na jigéen gën na tedde noonu <laughs> Cheikh Tidiane Sy na jigéen gën na fee tedde noonu ndax nee na jigéen mënula nekk seytaane mënul nekkit jaarukaayam mënu ko nee na jigéen ñett rekk la mën ñett rekk la mën a nekk benn muy ndey jur la mbaa muy sa soxna mbaa muy sa jigéen rek waaye nee na mënul nekk leneen <laughs> neex naa dégg te neex naa nangu hmm? ñett rekk la jigéen mën a nekk benn day mën a nekk ndey jur la du dëgg mbaa muy sa soxna mbaa muy sëb jigéen mu jeex mu ne mu ne leneen amul <laughs> mu ne leneen amul waaye euh, maam sunu aadama ni man awa daf ma euh, seytaane moo jaar ci moom man ma ne ko man ma ne ko moom it mu man ma nee ma ba ma laal la ma yàlla tere woon kon du ma mën a séqi sama jéegu di dem dem leen ngeen seeti nuux man su ma dee bàyyu ñéppit moom mooy ñaareelu baay bi ñu dem ca nuux ni ko aadama moo nu fi yabal nee na ñu seet si la ndax borom bi nee na ñu ñu ñu ñu ñëw layook moom kenn ku ci nekk say jëfe nga lay xaar fa moom ñëwal jiite ñu ñu dem mu ne ma nit ñemewuma séqi jéego ndax dama am lu ma doy sëkk daf ma yónni may woote nangam yi at kenn wuyuuma ñu may ñaawal ba ma xamee ne ñooñu duñu baax ma ñaan ko nu ko alag leen mu alag ñépp te ay jaamam lañu <laughs> te ay jaamam lañu maa ko alag maa ko alag loo ñooñu ñépp a ah, man loolu laay seet nu ma ko te doy na ma xalaat ba tax mënuma avancé dem leen geen seeti Ibrahima mooy xaritam ñu dem ci yonent Ibrahima mu ne ah ma ñu de wax dëgg yàlla am na lu ma war a lijjanti ma dem de ndax saarata ba ma àndeek moom du tukki ba jaar Misra te saarata dafa rafetoon buuru Misra booba doonoon di saay-saay boo xam ne moom fu mu gis jigéen rafet rek day dafaan nañ ko ko indil ah ma doon ko nëbb nag pour bañ buur ba gis ko fa ñu war a jaar dem ma jël ko ñu def ko ci lu mel ni waxande ma yanu ko ba mu ne lu ci nekk ma waxuma ko sama soxna waaye dama ko samay bagage rek moo ci nekk loolu laay seet nu ma ko lijjantee te sama soxna rekk a ca nekk waaye teewul ba mu ko waxee loola it ah buur ba mujj na jàpp saarata ndax mujj nañu gis saarata bu yóbbul ko ko mu ni Ibrahima demal fële Ibrahima dem buur bi jël saarata tëjoog moom fu muy tëjoog moom yàlla subhanahu wa bañ Ibrahima am jaaxle. mu dindil ko kiiraay mu mel ni rek ku ku nekk ci vitre di janoog ñoom ci biir na le lu buur bi wax saarata mbaa mu jéem ko ko ut saarata lànk ni ko man ki may bàyyi xel kenn la mooy buur bi te ki ma ma booleel may sëy ak moom dafa di koo xam ni moo la gën téeméeri junni yoon waaw Ibrahima di gis di dégg yàlla woon ko seen muy gis di dégg ba buur bi xam ni kii bokkul ak jigéen ña mu daan jàpp dina def la mu neex mu ne mu daal di ne saarata kon léegi dinaa la bàyyi nga dem waaye naw naa la dëgg dëgg naw naa la yow maa ngi wéet ak yow sa jëkkër gisula la mais lu ma la wax nga gàntu indil ma sa jëkkër indil ma ki tax nga ànd ak moom te mooy yàlla moomu nga xam ne moom moom nga ni moom nga gëm man de naw naa la naw naa la daal di koy may daal di koy may haajara ni ko kii jaam la booba haajara jaam la foofa mu ne ko jaam la te xalel la dama la koy may nga yóbbu ko mu lay liggéeyal say liggéeyu kër ak yooyu la yëpp saarata jël haajara indaale ci ibrahima ba mu jubee ibrahima ndeysaan ne ko maa ngi lay waatal ci yàlla ni buur loxoom sax tegu ab aadu ibrahima ne ko soxlawul waat yàlla war na ma lépp maa ngi jënoo ki yéen <laughs> ah yàlla war na ma lépp maa ngi jënoo ki di dégg li ngeen di wax ba ñu yeggee mu ni mu ni Ibrahima ah Aajara day buur may na ma ko nee na ma na nekk sama jaam di ma liggéeyal ci kër gi ndax jaam la foofa waaye man dafa am lu sama xel daj mu ne ko lan la sa xel daj mu ne ko yow mag nga te mañit mag laa te ragal naa ni man dootuma amati doom yowit kilifa gu mel ni yow tol ni yow war ngaa bàyyi takkandeer kon léegi kii ma buur may tudd ko jaam man dama koy goreel su ma ko goreelee nga may ma rek ma may la ko mu nga def ko soxna yàlla mën na la ci may takkandeer bu ko defee ñuy ñaari gor di ñaari nawle ci kër gi waaye xam nga ni kenn du saarata de du dëgg ma ne kenn du saarata de ah. suñu digganteeg yàlla ku mën loolu ci ñi fi toog nii <laughs> ana mer ana xadi mën na ko walla madam jaxam mën na ko ku mën loolu kenn du moom de ah waaye rek mu ni la ma ne woon samay bagage ci ne te waxuma la ca ne moom laa bëgg a lijjanti te xaw ma nu ma koy lijjante dem neen ci Moussa moo daan wax ak yàlla directement sans intermédiaire ñu daw ca Moussa Moussa ni ah man de dafa am ca na ñu doon xeex ma doon leen àtte sama loxo rëcc dal kenn kooko daanu dee te bakken rëy ci yàlla man looloo ne ci sama bopp bi moom laa xamul nu ma koy lijjante ci kanamu buur bi daal ni xam nga nan la bu leen sonn Isa nu Maryam fanweeri at rek la am ci àdduna daanaka génn àdduna buy ji borom di jotul sax am soxna amul doom kooku xët na mu tànn ñu tey ñun ci bés bi dem leen ngeen seeti ko mu wax ak borom bi jiitu ñu topp ci isa seen ñuy ñëw mu ne ah bu leen accidé man ñoo ñëpp ñooma tane man tanewuma kenn ndax man li ma indi dafa rëy man yàlla daf ma yónni euh, ni yonentam laa jaamam la ñemu ma yónni ca ñoom ñoom ñu ne yàlla yàlla la sama yaay yàlla la man yàlla la man ñetti yàlla yooyu laa bëgg a lijjanti te xaw ma nu ma ko lijjantee man ñëpp a ma tane ah <laughs> du moo ëpp ñëpp problème te kat yàlla ngi nettali loolu yonent bi de ci alxuraan de a an a anta qulta linnaasi ittaxisuuni ana wa ummi ilaahayni min dunillah ah Issa yow yaa naan yaa dem ci njiite naan leen jàppale na man maak sama yaay yàlla la man yàlla laa yàlla yàlla la moom Issa moom ba ko yàlla yéegee loolu la ko jëkk laaj ma dégg sëñ Cheikh Tidiane si ba tey yàlla na ko yàlla doole leeral kii ngërëm mu ne Issa ba yàlla laajal bu fa nekkoon di yat yati rek yàlla sàkkal ko pexe waaye ñu ne la jëmu tontu yàlla ah moo tax yàlla subhanahu wa taala xam ne kii mooy waa ji waaw yow dama la yónni au lieu nga dem ni man yàlla laa di kenn yow nga dem ñee naan yàlla nga sa yaay yàlla la man yàlla laa xam nga lu ko Isaa tontu ni ko man ba ma yónnee ba ma demee fa laa la fekk <laughs> ba may wax yaa nga fa <laughs> su ma ko waxee xam nga su ma ko waxul xam nga mu jeex <laughs> du dëgg nee na yàlla ni ko waaw su ma leen mbugalee nag mu ne ko yeenu kenn newu ci say jaam lañu su ma leen jéggalee nag mu ne ko yaay Aziz te yaay Hakim Serigne Cheikh ni kon ah jeex na comme yàlla nangu naa Aziz ak Hakim <laughs> mu ne kon kenn du dem safara Cheikh Tidiane si yu garaaw rek lay wax. yaay Aziz yaay Hakim xam nga Aziz mooy koo xam ni sa fayu xajul ci kenn mais ku sa fayu xajul ci kenn doo fayu boo fayoo ñëpp dee hmm? Hakim mooy koo xam ni lu mbir rëy rëy rëy rëy rëy rëy bu ëgsee ci sa kanam tuuti jeex na. yaa Isaa leen man loola dëgg la buur bi laajoon na ma waaye loolu doy na ma lijjanti bu leen sonal seen bopp. fii kenn dong dong dong moo fi mën a séqi jéegoom ñu topp ko wax ak buur bi mooy Habibullah boo gisee yonent bi daan wax ni alayhi salaatu wassalaam mooy lii ngeen di def daan na ko wax na ngeen may dimbalee ci seen bopp ngeen sama xeet di bari lu ngeen du julli ci man yéen sama xet na ngeen ma dimbalé ci seen bop bari den rek lu ngeen di julli ci man dafa yaru rek sallallahu alaihi wasallam te modeste dafa yaru rek te modeste waye xam nga wax jël la ci waron top ku ne xam nga ko deg nga ko bu ëllëgee nu seen yonent mën a ngeen xam <laughs> waye dafa yaru motax yeggu ci waye man man ma ci yegg dafa yaru rek. ñoom ñu fi toog. waaw laata tagay commencé kenn ku nekk def na 313 salaatu ala nabi ba ëllëg. nee na dee leen di bari lu ngeen du julli ci man ba ba yem fa yemale fa wax ja jatu bu ëllëgee ñu xam ki ñu amal affaire kan la julli leen ci moom rek nañu julli ci moom rek mu dellu waxaat ni euh, yéen sama xeet daldi waxaat ni bari len lu ngeen du julli ci man surtout besu aljuma nak dem na ba ag fofu besu aljuma de len di ful li ngeen du julli ci man fufu noppi yi la wax hmm? de len di bari lu ngeen du julli ci man surtout besu aljuma waxati benen encore xam nga bu mu waxat benen la benen benen ban laati wa mu ñu dal ko xamni wëlërante nga ak man ci ajjuma gu jot nga julli ci man junni yoon képp ku fexe wëlërante ak man ci ajjuma gu jot nga julli ci man junni yoon doo dee mukk lu dul ne yàlla wan na la say dëkkuwaay ci aljanna nga gis ko te deewoo woon ah <laughs> ajjuma gu jot nga wóolarenteeg yonent bi yaa xam ban heure nga koy def nag ajjuma gu jot daal nga julli ci moom junni yoon saxoo ko ajima gu jot noonu nee na doo dee mukk te yàlla wonu la say dëkkuwaay ci aljanna nga janoog moom hmm? kon julli ci yonent bi di salaatu ala nabi jaarukaay la jàllukaay la rawukaay la ku ci jaar loo tilim tilim tilim ak loo bari bari bari bàkkaar boo cay jaar yàlla di la setal wecc di la recevoir waaw salatu ala nabi moom passe partout la ëppal ñëpp bàkkaar jaar ci rek nga xool mu fóot la ba nga set jox yàlla yàlla nangu Serigne seex mu garaaw metti Serigne Cheikh mu garaaw metti nee na même boo ko yàqee nee na miim gi wér rek la ilaha illallah miim gi allahuma salli boo neen Mamadou sax nee na na miim gi wér rek buy wér ngay jàll <laughs> ah? ah xam nga lu koy jàlle xam nga lu koy jàlle même boo ko yàqee xam nga lu koy jàlle allahuma salli bi nga wax yow kay boo xasee ba ne allahumma salli amatoo ci ab yàlla mooy def léegi dencal la fa moo tax àq yi nga ameel sa moroomi jaam yi ni yow yomal xiyaam ñuy jël ci sa yiw di leen fay di jël ci sa yiw di leen fay bu yiw ya jeexee te àq ya nga ameel jaam yi jeexul ñuy jël ci ñi nga ameel àq comme amatoo yiw ñuy jël ñoom ci seeni bàkkaar di la jox di jël ci seen i bàkkaar di la jox lu toog lu tolloog ak ya nga leen ameel mhm. te si ku sa yiw jeex wala yaasu billah doo dem aljanna yal ci musal ñooy almuflisuun ba ngeen jàng ci seen laxdar yi mhm. nu ngeen koy jàngee almuflisuun mhm. allazina daat amaarum xamu fi xayri taatillah lu mu ce fa yaa xasratum wa yaatu la bukaayim yowm alqiyaama ah ñooñu nga xam ni dañ leen a amatuñu dara ci yiw fay nañ ko ñi ameel àq na yàlla dafa màndu lu ñuy dese ay jooy yu yàgg rek yaa ngi ci yàlla musal yemal xiyaam te doo gis ko la ni noppil hmm? ndax lan loo ko yóbbee perte gu metti rek yiw yooyu ñuy jël nag di fay ña nga amee àq salaatu ala nabi yi nga def kenn du ko laal ndax defoo ko yàllaa ko def. kenn du ko fay kenn kenn du ko fay kenn moom bu bu ca dara lu salaatu ala nabi yàlla dafay ubbi ci magasin bi di la fayal. di la fayal salaatu ala nabi yi nga def ala kulli xaalin faw nga dem aljanna jaaxaane ji ko fa xéewloo ji ko fa benn werante newul ci loolu xanaa kon jaarukaaya ngoog xanaa kon jaarukaaya ngoog xam ngeen nekk ngeen ci lu dal xel lool sax ba noppi it gën ngeen ci demin ñi ko deful nii yéen salaatu ala na loo ci def xeeb ko yàlla ko ubbi pour jaam daw jaar fa pour mën a xéewloo ji ay teraangaam ca aljanna mën koo mucce ca safara ba faw salaatu ala nabi ku koy saxoo doo xam fu safara féete doo ko xam mas nañ ci joxe misaal mu xaw a reeru te xaw a ba salaat salaat si ñuy lekk salaat moom salaatu ala nabi barke boobu moo ko jàpp ba tax na ñi mi àndal ñëpp daañ jaar safara sëf moom moom <clears throat> hmm? salaat seetlu boo ko ah du fa jege sax ah tàkkusaani suuf lañ koy arrosé ak ndox mu set ca tam ya daggu xobam yi ñëw raxas ba mu set dégg nga yeew ci morso bu woyof wékk ko ci li muy njëwaanu péex mi di ko jaar fu ne boba fekk na ginar rendi nañ ko soode nañ ko butti nañ ko boba fekk na firir mom wara andal momit was nañ ko ba desatul waran tour wasin tour xottat ko dugul ci bir ci dilun ju tang ji mburu mom wara andal demal ci boulangerie ba fekk ko fa jam nañ ko rek nañ ko dor nañ ko yett xottat nañ ko salat mom ma ngay rek <laughs> du dëgg te kat boo watul ñoo jaar safara ñëpp moom muy njowaanu bu bu reer ba sottee nag ba ñu ba ñu teg ko ba reer ba noppi kenn du tudd ca yooyu benn eh ñun salaat sax defaral <laughs> kon nag salatu ala nabi nan ci jàpp. dara yi sun Ibrahima lay njëkk sol sol dalli sii sa xitam nooxin ba yàllaawu ndomba kilaabin terax lu laaya la ca teg. man tob xusay mbaxanaab Ilyas ba yàllaaw ñu jox ko ay su Ismaayila ba ak bari sool ba ba mu donne woon ñaar nisaar ak maxduy yàllaaw ñu jébbal ko caabi kaabak makkata foofa mu yore si xaayatul xaaji mooy xalifa yàllaaw mu dem nu yoog baay ba ak mbokkam ya daa di labat ma nga naan ñi ñooy waa ahlu bayti rasulullah yallaaw ji calala jararango per bile jaranas diggal balay way rasulullah yallaaw yonen du ànd ak ay sayduna muhammad yonen du ànd ak cangaay ay sayduna muhammad ay Moustapha du bel beli far moo tax ku màggal Seyduna Muhammad doo dem naar yàllaaw biyaa na jaatu wal fala ci boobu yonen masroore wana jaa biya wa sala man di fay ni xami xawat xawaari xawa bada ani ruwaati sabata kamis la naari arfiya maam yaay dàqami siduna Muhammad waxay ni saawatalati xat asumat wajaalati li fursi xabla millati kasuirat kaladami wakan idaadi suubi tardan li axliiriya bi min samqi axbaari nabe wara joobi nadami siduna muhammad turidu fi abi nujum ani samawati rajim wa fara khasiran yulim bis biza wa kami siduna muhammad sataina wulida khairu nabiyyin khadbara sala alayhi man ada fuado bile kami nañu màggal leeru seyduna muhammad nuurun azimun xad yara bi xusooru xaysara man kaana man kaana fi umul xura makkata xayrul urumi nuurun azimun xad yara bi xusooru xaysara man kaana fi umul xura makkata xayrul urumi seyduna muhammad xarana badar moo fa daan xarana yamama moo fa daan seyduna muhammad xarana xandax moo fa daan jilewaayi amul moroom seyduna muhammad xanaa xamulooni ku dem ba seyduna muhammad kenn mën a tula taxal sa yàpp yaram aram na sawara seyduna muhammad seyduna muhammad seyduna muhammad xare na badar moo fa daan xare na uxut moo fa daan xare na xandax moo fa daan sunu waaji daal amul moroom